nga xam ne wax nga ko ci sa xutba tey bi. waaw xutba tey bi nag xam nga bokk na ci li taxoon mu jog mooy li ñu nemmeeku ci ay jafe-jafe ci biir société bi loo xam ne mun nañu indil fitna mun nañu indil jafe-jafe looloo taxoon ñu jiital couche yi yëpp jiital nag kenn ki nga xam ne mooy citoyen sénégalais bi mu xam nag. ñoo xam responsabilité yi responsabilité partage la ñëpp a ci bokk gannaaw loolu ku nekk ñu jagleel ko la nga xam ne moom la yeyo ñu jagleel jigéen ñi ñu lu yaatu lool ndaxte nemmeeku jafe-jafe yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci njaboot gi ñu ne nañu dellu siwaat am pas-pas bu dëgër am jikko bu baax taxawu seeni borom kër taxawu njaboot gi rawatina ci njàng mi ak yar bi gannaaw gi ñu toftal ci lii nga xam ne mooy leader yëpp këpp koo xam ne yaa responsable nga yore réew mi ak ki ko bugg a yore ñoom ñëpp nañu bàyyi xel peuple bi nañuy jiital peuple bi bañ a jiital seen i intérêt bañ a jiital intérêt seen i doom mbaa seen i xame mbaa seen i jegeñaale mbaa seen i parti ñu xam ne lépp Sénégal la loolu nag li koy indi mooy wax dëgg dëf dëgg maandu yemale ñëpp lëpp kàddu boo yëkkati bu dee day indi fitna bàyyi ko luwa booy yëkkati bu dee day indi na bàyyi ko lépp looy def rek tëral ko nga jiital peuple bi beneen bi nga xam ne teg nañ ko ñu jagleel leen ko mooy eh, ministère de l'éducation ñu ne war naa taxawaat seetaat mbir yi ndax li ñuy nemmeeku léegi fu école di tëj fa nga xam ne foofu lañ leen doon yaree dañuy wane comportement boo xam ne daal ragal nañ ci tiit nañ ci mooy saccager école ba toj banc yi léegi nag ñuy poser question est-ce que jotul nag ñu seet programme boobu nga xam ne moom la ñuy jàngee ba jikko yi dal di feeñ est-ce que jotul ñu xool ña leen doon jàngal est-ce que du laaj ñu tàggataat leen seetaat leen ñun suñu civilisation ñun suñuy aada ñun suñuy doxalin ba li leen yóbbee ci lii xëj na bu ñu seetaatoon yooyu euh, du yegg foofu moom itam nag mu jël responsabilité am ci ñi nga xam ne ñu ngi def anam yooyu ñu taxawaat beneen bi ci tegu mooy parents yi nañu bàyyi xel ci xale yi nañu leen yar léegi la nga gis xale bu góor boo xam ne dangay tiit doo xam sax fu mu jóge ci ni mu soloog ni muy watoog léeg nga gis xale bu jigéen boo xam ne seytaane sax bëgg ko xef ya mu monteeg maanaam wee ya mu monte anam bi la mu sol na muy doxee koo xam ne seytaane ñemewu la kooku est-ce que jàpp nañ ci comportement boobu ñuy am leneen lu dul li ñu am ci biir école yi ñu daanelee ko nag ci ñi nga xam ne ñooy peuple bi ci boppam nga xam ne ki bugg a des ci réew mi day waxtaan ak peuple bi ki bugg a jot ci réew mi day waxtaan ak peuple bi kon peuple boobu moom na am na xam boppam na taxaw ci taxawaayam jarul grève jarul marche jarul xuloo jarul lenn carte nga yore carte boobu mooy arme bi gën a màgg sa carte boobu téye ko nga sensibiliser koo mën a sensibiliser nga ne ko bu ñuy tànnati nañu tànn ku am diine diine bu mu mën a doon nag nañu tànn ku maandu nañu tànn ku dëggu ndaxte ñëpp ci biir Sénégal xamante nañu ñun ñëpp xamante nañu foo mos a liggéey xam nañ ko foo mos a féete xam nañ ko loo mos a wax xam nañ ko ndi ngay soloo xam nañu ko kon loolu ci tànn boobu nañu tànn ki gën koo xam ne ku baax la koo xam ne ku jubla la koo xam ne day nangu partage koo xam ne dañuy sammal alalu réew mi mu def partage boo xam ne moo war a ne lii moo ñuy indil jàmm kon lii daal la ñu tënkoon ci anam bi ñaan ne yàlla nañu yàlla defal tawfiq wasalaamaaleykum tuuru deret ci jaamoo ko borom bi sama dundu sama dee lépp bàyyee naa ko borom bi tabaraka ndaxte moo moom mbindeef yi bokk ko kenn ak ñenn ca loola moom moo ko moom moo ciy doxal ak coobareem man mii di wax ak yéen loolu lañu ma digal te xam ngeen ki ko ko digal mooy tabaraka wa mu ne man mii de maa leen njëkka nangu wom motu ci defal ma def bàyyil ma bàyyi ci attey borom bi subhanahu wa taala kon yow ki ñuy jaamu lii de yaa ko jox delloo naa la ko waaye nag sama ñaari kuy yi benn bi dey mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallama aku xeetam kon maa ngi tudd yàlla ci bismillah maa ngi màggal yàlla ci wallahu akbar kon nii la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rendee woon waaye nattu yi nga xam ne nangu nañu ko ci borom bi subhaanahu wa mu ne ma dal di ko wëttee leneen nangootuma man borom bi subhaanahu ngir mu rendi ko baay ja wommatu na doom ja wommatu na yaay ja yommatu na ñoom ñépp nangu nañ ne ndigaluk borom bi subhaanahu wa taala borom bi dal di ko wàcceel ab kuy bu màgg bu rëy mu ne ko rendil bi bàyyi ibrahima alayhi salaam kon mbokk jullit yi ndigaluk borom bi képp ku ko nangu rek borom bi subhanahu wa taala jox la lu ko gën mbokk jullit yi mbokk doomu aadama yi ñu ngi woo mboole seen citoyen sénégalais ñépp ku nekk ci tolluwaayam ku nekk ci taxawaayam ku nekk ci responsabilité am bàyyiwuñu kenn góor laak jigéen laak mag laak ndaw laak ku mu mun a doon ci sab tur ñu ngi lay daldi woo kon ñu xaaj ko ci nii kon peuple Sénégal yépp lañuy daldi woo liñ leen di woowee mooy nañu moytu ñaaw téef nañu moytu moy yàlla nañu moytu lu ñaaw nañu moytu def lu bon moo xam dafa feeñ mbaa defa nëbbu ndaxte lu bon te ñaaw mooy sabab lii tax ay coono am ay jafe-jafe am ay mbugal am yoo xam ne bu ñëwee ñépp lay dal di yóbbaale kon sabab ba mooy lu bonte te ñaaw defal te doo def bàyyil te doo bàyyi borom bi subhaanahu wa taala feddi leeral ko mu ne ñu wa ma asaabakum min musiba fa bima kasabat aydikum wa yaafu an kathir allahu akbar allahu akbar alhamdulillah borom bi subhanahu wa taala mu nen lépp lu leen dab ci jafe-jafe yéen a ko def yéen a ko def ci seeni loxo bu dund bi seeree yéen la bu agression baree yéen la bu ay mars bare ak ay fitna yéen la parce que daa am ku wax lu warula wax daa am ku def lu mu warula def daa am ku fas ku mu warula fas kon fa bima kasabat aydikum mu ne yéen la yéen a ko def yéen ay responsable waaye yàlla mu ne topp ma leen wa yaafu an kathir mu ne lu bari da ngeen koy def rek ma jéggal leen rek bàyyi su du doon loolu rek musiba am kon yal nañu jéggal yal nañu defal tawfiq euh, liñ ciy toftal ñu ngi woo jigéen ñi ñu ngi woo jigéeni jullit yi nañu góor lu taxawaay ba mën a wéral seen pas-pas joyanti ko mu nekk lu wér lu leer ñuy tabax taxaw ci jaamu yàlla bu wér ñuy suturaal seeni cër ñu fexe nekk ñu am kersa ñu am jom waaye nañu fexe di taxaw di taxaw seeni borom kër ndax daa bokk ci mission ndaxte borom bi subhanahu wa mu ne dalukaay la bu ñëwee dal di dal na ngeen wax ak moom lu lewet nangeen ko wax lu neex nangeen leen di nangul nangeen leen taxawaay taxawaay bu mucc ayib ndaxte loolu daa bokk ci lii indi jàmm waaye na ngeen góorgóorlu bu baax a baax nag bañ a déglu njabarkat bañ a dem ci njabar bañ a seetlu bañ a listixaar bañ a fanaanoo ndaxte loolu li muy indi lépp mooy jax-jaxal xol mere ku la deful dara di firi ay mbir yoo xam ne du dara amul benn sens nga firee ko noonu fekk ki lor mooy njabarkat boobu wal iyaazu billah nañu sori lépp luy bidaa lépp luy aada bu bon lépp luy wone seeni cër lépp luy jaxasoo ak yeneen góor lépp luy wéet ak ñoom nañu sori la waaye nañu taxaw ci yaraat xale yi yaraat njaboot gi nemmeeku leen taxawu leen ci seeni lépp ndaxte gone yu tuuti yooyu ñooy nekk magu ëllëg ñoom ñoo ñuy wuutu ñoom ñoo fiy taxaw waaye nañu taxaw dëgg-dëgg nag ngir sàkku xam-xam ngir jàppale xale yooyu nañuy sàkkoo xam-xam taxaw ci anam booba ñaareel bi ci secteur bi ñuy woo mooy ñu ngi woo ndaw yi ñu ngi woo jeunes yi ñu ngi bëgg ñu déglu bu baax a baax ndaxte ñoom ñooy kàttanuk réew mi ñoom ñooy ëllëguk réew mi ñoom ñooy yaakaaruk réew mi gannaaw borom bi subhanahu wa taala te ñoom ñooy wuutu mag ñi kon liñ leen di ñaan mooy nañu góor góor lu muñ di sàkko xam-xam bu leen amal njariñ amal société bi njëriñ nañuy sàkku ay xarala yoo xam ne ay tàggatu lay doon ba ñu nekk ay cadre ba ñu nekk ñoo xam ne dañuy xam nu ñuy liggéeyee fa ñuy liggéeyee lan lañu war a liggéey ñu góor góorlu bu ñuy sàkku am am nañu ko sàkku ci lu dagan waaye nañu góor góorlu ci yar ak teggiin ak njub ak lewet bi nga xam ne moom la islaam dal di tëral waaye nañu góor góorlu aada yi nga xam ne fekkoon nañ ko fi mu nekk aada yu baax aada yu rafet ci yarin ci fonk mag ci bari kersa ci am jom ñu taxaw ci anam yooya ndaxte loolu rekk moo leen mën a gindi waaye nañu góor góorlu nag di sonn ci lépp loo xam ne intérêt général la ñu ciy dal di sonn ñu ciy dal di taxaw taxawaay yu mucc ayib waaye nañu góor góorlu nag bañ a sànk seeni waxtu ci loo xam ne amul njariñ nañu góorgóorlu bañ a sànk seen waxtu ci loo xam ne amul njariñ waaye nañu góorgóorlu bañ a yàq ci yoo xam ne keneen moo ko dajale ay toj ay yàq ay féttéerlu waay waay nañu ko sori lépp loo xam ne intérêt général la nañ ko sàmm bu baax a baax lépp loo xam ne particulier la nañ ko sàmm bu baax a baax ndaxte loolu dong ci la réew di màggee ci la réew di jëmee kanam ñetteel secteur bi ñuy woo mooy ñu ngi woo euh, ministère de l'éducation nationale di ci jiital kañ ko dénk di ministre bi dëgg dëgg nag war naa yokk taxawaay war naa seetluwaat war naa seetaat programme bi war naa seetaat yarkat yi ndaxte li ñu gis daal ci at yii dalul am xel kon war naa jël responsabilité am seet ñi nga xam ne fépp fu école di tëj fa ñu doon jàngee dañ koy yàq dañu koy tasaare dañuy sànni ay mbir dañuy sabote mais loolu ministre bi war na ci veiller mais lii lu ko waral lan la bu dee programme bi ñu changé ko bu dee jàngalekat yi ñu former leen bu dee ndaw yi ñu yar leen bu laajee bàcc-bàccal ñu def ko lépp lu mu laaj dañ ñu dal di ko def ndaxte lii bu ñu ko bàyyee fa nga xam ne foofu la jëm ah du jig kenn du baax ci kenn ndaxte ki nga xam ne moom mooy wuutu ëllëg ecole di tëj fa mu doon jàngee mu toj taabal ya xotti kaye ya tasaare mbir ya dal di yàq waaw ana ñi leen doon jàngal ndax jàngaluñu leen senegaal moomeelug senegaal fonk moomeelug Sénégal am yar am teggiin bëgg a def lu baax ngir jàng xam lu baax ana ñooña kon beneen responsabilité ngi noonu kon ñu ngi wax ministre bi seetaatal say programme seetaatal sa njoboot jëlaatal yeneen mbir yoo xam ne mbiruk seetlu la mbiruk gendeeku la ndaxte lii ñu gis baaxul de fa ñu waroon a yaree léegi ñoom ñooy génn di yàq di def ay musiba ñu ngi woo nag waajur yi waajur yi ndongo yooya ci ay kër lañu ñu génnee ana seeni baay ana seeni yaay lan lañ leen jàngal xanaa jàngaluñ leen diine xanaa wonuñu leen sunna xanaa wanuñu leen teggiin ak yar xanaa wanuñu leen aada yu baax yi nga xam ne yooyu lañu nekkoon fii nga xam ne mooy am jom mooy am kersa mooy bëgg lu baax mooy raw ci booy liggéey mooy raw ci booy jàng ana parents yooyu lan moo tax ñu disparaître kenn gisu kenn gisuleen boo gisee xale bu góor subhanallah dangay dal di tiit kii moom fu mu jóge na mu watoo na mu solo na muy doxee na muy waxee boo gisee xale bu jigéen subhanallah seytaane ñemewu ko seytaane ñemewu ko seytaane ñemewu ko li mu diw xef ya mu monte ongle yamu monte boo ko gisee da ngay laaj lii doomu adama la lii rab la ana parent ana ñu ci biir kër yi lañu génnee kon mbokk yi bu ñu nax suñu bopp responsabilité partage la lii am ñun ñépp ñooy ay ay responsable lu tax loolu di am kon ñu ngi woo ñépp lii moom na dàkk ci nu mu mën a dàkkee nag nañu góor góor lu mu dàkk ñeenteel bi nga xam ne secteur bi ñuy woo mooy ñu ngi woo bépp candidat boo xam ne da ngaa bëgg a jiite réew bépp candidat boo xam ne da ngaa bëgg a toog ca péncu réew ma moo xam nag yow da ngaa bokk ci xujja gi yore réew mi wala da ngaa bokk ci xujja bi bëgg a yore réew mi kon ñoom ñépp ñu ngi leen di woo ngelawaay nañu jiital intérêt peuple bi nañu jiital intérêt peuple bi la ngeen soxla ki jiite bëgg a des mais ci peuple bi ngay dem ki bëgg a jiite jëlee ka fa nekkoon ci peuple bi ngay dem kon nag yéen leader yi lu tax respecté wu leen peuple bi yéen ñi ñuy tànn ñu yóbbu leen assemblée nationale lu tax respecté wu leen peuple bi te peuple bee leen fa yóbbu man de gisuma élite député boo xam ne wàcc na ci baas bi mu ne dañu bëgg a woote loi nangam loi boobu lii moo ci njëriñ lii moo ci inconvénient te yow yaa tax ñu koy woote lu ci seen xelaat gisaguma ko waxuma amul de gisaguma ko te loolu waroon a am loolu waroon a am député bu dem assemblée mu ne man député diw laa kooku waru fa woon a fanaan doo député diw doo député président doo député keneen ku bëgg a yore réew mi te yoreegu ko déedéet député peuple bi nga peuple bi moo la tànn yóbbu la foofu kon lu tax respecté wu ñu bi tax mais pouvoir dafa war a respecté bi opposition dañu war a respecté peuple bi kon lu tax respecté wuñu peuple bi yow pouvoir da ngaa war a respecté peuple bi te lépp looy tëral mu nekk intérêt peuple du indi fitna du indi xiiroo du indi ŋaayoo mais bu dee da ngay jóg kon lu am yaay responsable yow ki bugg a jiite da nga war a respecter peuple bi waroo jiite luy indi fitna waroo woote ci luy indi fitna waroo yore benn posture boo xam ne baaxul loo ci yore respecté wuloo peuple bi boo waxee ne peuple bee tax waaye ñun peuple bi moom ñun dey moom gëmuñu ko de gëmuñu loolu kon nag na ngeen taxaw ci anam booba loolu la peuple bi bëgg peuple bi daa bëgg na ngeen respecté peuple bi bu leen jiital seen intérêt bopp bu leen jiital seeni njoboot bu leen ko jiital na ngeen jiital intérêt peuple bi parce que réew mi ñun ñoo ko bokk loolu dong mooy li nga xam ne buñ ci taxawee dañuy dal di am jàmm bu baax a baax te ñépp itam nañu fexe di dëgëral luy indi jàmm ci seeni discours ci seeni tëralin ci seeni loi bépp loi bu indiwul jàmm rek baaxut loi daa ñëwoon pour ñu am jàmm loi daa ñëwoon ngir tënku ñu ñu am jàmm mais ñu ne loi sangam tël rek peuple bi yuuxu musiba am loi ba baaxut parce que arrangé wul peuple bi arrangé wul bi kon mbokk yi nañu seetaat loolu bu ñu defee lu jub lu leer lu baax picc du naaw waxatuma la ak leneen kon nañu taxaw ca anam booba kon ñooñu nga xam ne loolu la leen yàlla nattoo ñooñu la ñuy dénk loolu ñu ne nañu góor góorlu ci lëpp luy indi jàmm di ko dëgëral ak lépp luy indi nangoo bokk parce que doo nangu picc naaw waxatuma la ak leneen kon loolu de ñu ngi lay koy dénk bu baax a baax gannaaw ba nag yéen yéen ñi nga xam ne yéen lañu war a respecté yéen ñi nga xam ne yéen ay fal yéen ay folli yéen ay tànn waay waay waay waay dëgg-dëgg yéen itam xam leen seen bopp ngeen yore seen responsabilité ngeen taxaw taxawaay boo xam ne taxawaay bu mucc ayib la kon na ngeen góor-góorlu ci loolu nga xam ne dëgg-dëgg loolu mooy xeexukaay bi marche grève yuuxu sànni xeer bañ a may autorisation may autorisation amul solo xam nga li am solo mooy carte su ndaw si ngay xeex loolu am solo carte boobu nag sa diggante borom bi subhanahu wa taala bañ nañ ko ba defal la isoloir pour boo demee di tànn kenn bu mu xam looy tànn waaye yaa as fekkee da ngaa mer meral nga téye sa carte yow da ngaa mer téye sa carte sensibiliser nit ñi yow da kontaan téye sa carte sensibiliser nit ñi. loolu mooy xeex mais leneen li nga xam ne dañ koy def nii loolu tagrib la loolu yàq la kon yow mi nga xam ne nag yaa ngi jëm ci loolu boo demee bay tànn li ngay njëkk a xelaat may sa digganteeg tabaraka wa taala kii may tànn lu tax jàppale loolu bu baax kii may tànn lu tax lépp lu mu fi def lu baax bokk naa ca danaa jot ca tiyaabo lépp lu mu fi def lu bon bokk naa ci danaa jot ci bàkkaar bi kon xoolal loolu settantal ko kooku nga xam ne yaa ngi taxaw nag nga ne man kii laay tànn xamal na yaay responsable ci kanamu borom bi subhanahu wa taala waaye yow itam yaay responsable ci kanamu peuple bi kon kooku ngay tànn seet ko settantal ko na nekk ku jub ku ñu xamut njubam na nekk ku maandu ku ñu xamoo maandoom nga soog koo tànn parce que loolooy tax ñuy tànn deret warul tax ñuy tànn fii la dëkk warul tax ñuy tànn gox bii la féete warul tax ñuy tànn loolu boo ko defee am nga responsabilité ci kanam borom bi subhanahu wa taala yu tax nga tànn ko dama seet seetantal gis ne ku jub la ma jàpp ne ku baax la ma gis ne ku maandu la tabaraka wa taala lii moo tax ma tànn ko waaye yow xam ne koo xam ne xam nga jubadeel xam nga ndëngteem xam nga ñàkkoo maandoom waaye ñoo bokk gox ñoo bokk parti ñoo def lenn man kooku lay tànn yowmal qiyaama da ko rëccu yowmal koy rëccu bal da ko tàmbalee rëccu ci àdduna bi fii ku jubul manul jubal ku maanuwul manul yemal fokk jub ak maandu nga soog a jiite ci li ñuy tuddee al amaanatu wal adl mooy ci maandu ak yemale waaye bu dul loolu manta ne kon loolu ku nekk na xam ne ak responsabilité la bu taxaw ci kanamam te nga yëg ne loolu dëgg-dëgg mooy xeex bi te loolu dëgg-dëgg nag moo ñuy may jàmm mooy attekat buy atte dëkk attekat bu maanu attekat buy yemale nit ñi attekat boo xam ne daa farlu ànd ak ku yore dëgg taxaw ci kanamu kaccoor taxaw ci kanamu sàcckat taxaw ci kanamu jalgatikat kenn du ko bañ bal ñéppay toog di ko ñaanal waaye sabaan ba bu amee yàlla rocci la ci biir xolu jaam yi danga yuux rek fekk nekkatoo ci xolu jaam yi kon mbokk yi xeexukaay bu ngànnaay boobu nañ ko ngànnaayoo ngànnaay boobu nañ ko ngànnaayoo ndaxte mooy tax ñuy am jàmm looloo tax borom bi subhanahu wa taala safaan ba moytu leen ko de wattaqu fitna moytu leen fitna mais fitna nag ñépp a koy moytu yow kii tëral ay loi moytu loi buy indi fitna yow kiy discours moytul kàddu yuy indi fitna yow kii dogal moytul dogal luy indi fitna yow kiy génn moytul génn buy indi fitna moytu leen fitna ndaxte du bàyyi kenn gis nga kàttan boo woroo ci kàttan ñu la ëppoon kàttan ëpp la am am ëpp la man-man ëpp la sañ-sañ yàlla alak na leen yàlla alak na leen nekk fi di yuuxu di def nangam yàlla bu ko neexoon nga xëy rek mu rocci sa xel bokkato nga xëy rek paralysie bokkato nga xëy rek muumo nga xëy gumbo nga xëy tëx bokkato te borom bi subhanahu wa mën na loolu lépp te loolu mu mënu ci dara médecin munu ci dara dara munu ci dara kon nañu gëm loola ñu moytu fitna moytu fitna boobu nag la muy wone mooy dëgg-dëgg da fonk sa peuple da bëgg sa peuple parce que bëggoo jafe-jafe bëgguloo ku yàqule yal nañu yàlla musal yàqule allahumma ja'al baladana hada aminan mutma'innan wa sa'ira biladi muslimin wa jannibna alfitan ma zahara minha wa ma batan wajma chamla almuslimin wa allif bayna qulubihim allahumma walli alayna xiyaarana allahumma walli alayna xiyaarana allahumma walli alayna xiyaarana allahumma agisna allahumma agis albilada walibad birahmatika ya arhama arrahimin allahumma sayiban naafian hanian marian برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن allahumma inna nauzu bika min altaxrib walfasad birahmatika ya arhama arrahimin rabbana atina fi dunya hasana wa fi laxirati hasana wa qina azaba annar rabbana la tuzig qulubana bada is hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahhab allahumma salli ala nabiyina muhammadin wa sallama taslima kon mbokk yi fi ñu daane lay mooy al foog am ñu ñu sant gërëm leen bokk na ci autorité yi salaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu ba tey ñu ngi fii ci euh, mosquée bi euh, imaam Galaye Ka moo doon jiite fii tey ci it bi euh, mu nekk dixième jour bi yaa imaam ñu fekk la ci jullikaay bi nan nga gise xutba imaam bi nga xamante ni def na ko sensibiliser jeunes yi ak ci yi nga xamante ni bii coow yi nga xam génn nañ ko fii senegal ak ci njëw waaw ñu ngi sant imaam bu baax ci xutba bu am solo bi mu def ndax xutba bu matale la te loolu la ñuy xaar ci bis yu mel nii. Euh, ñëpp gis nañu woon euh, euh, peuple sénégalais ci responsabilité woon jigéen ñi ci phénomène boo xam ni bu doy waar la ñëpp gis nañ ko muy phénomène njibar bi am Sénégal ñëpp xam nañ ni njibar phénomène la léegi nag phénomène boobu tere na ko jigéen ñi wax ni nañ ko maytu niki noonu wax na sénégalais yi ci seen responsabilité ci wàllu élection ñëpp xam nañ ñi ngi jëm ci élection législative yi mi ngi ñaan ñëpp ñu ànd ak seen sago xam ni euh, li ñu leen jox muy seen carte électeur loolu mooy seen moyen bi ñu war a wanee seen baat liñ bëgg liñ bëggul waaye wattajul benn fitna loolu nag di ay thèmes yoo xam ne bu ci nekk am na solo ñi ngi ñaan euh, yàlla suñu borom defal ñu tawfiq ba ñu jëfandikoo ñu ñëpp ba tey ñu ngi fii ci jullikaay bi euh, def ay interview yoo xamante ni bii dañuy laaj comme xutba bi xutba bu am solo la ñi nga xamante ni bii ñoo nekkoon ci jullikaay bi lan mooy seen xalaat ci xutba bi nga xamante ni bii imam Galadio Ka def na ko tey. waaw ah, asalaamaaleykum wa rahmatullah ngi sant borom subhaanahu wa taala julli si yonent bi sallallahu alayhi wa di wax ni taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal ah, xutba imam bi am na solo lool lool lool dafa laal fi nga xamante ne daal mooy métti daal daa wokk fii xasan ndaxte si secteur yi mu wax yu bëri yi nga xamante ne junj na ko tey mu nekk loo xamante ne lu lu doy waar daal rawatina ci politique bi ak ci secteur euh, éducatif bi boobu tamit laal na ci bu baax a baax a baax wan na wane na li nga xamante ne gis na ni élèves yi fan yi commencé nañ ko jëlee ko fi nga xamante ne moom mooy ci ci extérieur commencé ko comme que réseaux sociaux la ñu wax bu gars yi tàmbalee dara rek vidéo yi dem rek daanaka sénégalais yi dañuy commencé di répéter loolu noonu di copier loolu noonu daanaka ñu def benn jëf joo xamante ne jëf bu ñaaw la bu amoon ci sem yoof bu revenir si wax ci loo xamante ne lu am solo la ngir parents yi mën si bàyyi xel bu baax a baax a baax waaye tamit wàllu politique bi nga xamante ne tamit indi na yàqute si biir réew mi indi na tiitaange si biir réew mi indi na lu ne si biir réew mi loolu tamit wax na ci bu baax a baax a baax gannaaw ba mu ñu digalee li yàlla digale mooy ragal yàlla at li nga xamante ne mooy topp si sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que jàngalekat lan mooy saafara li nga xamante ni bi depuis des années ñu ngi koy gis bu fin d'année jotee rek xale bu fekkente ni feete nañ seen feet ba pare wala def nañ composition ba pare dañuy sécager yëpp yoo xamante ni jëndaleen nañ leen ko loolu responsable bi ñan la. waaw loolu de responsabilité boobu moom comme ni ñu ko waxee responsabilité partagée la daanaka jàngalekat bi da ciy am responsabilité waaye tamit parent bi da ciy am responsabilité ndaxte yaakaar naa ab jàngalekat bu yoree ay élèves di waxtaan ak ñoom di leen yar di leen tette pendant neuf mois wala dix mois kon ñooñu bés bu ñu génnee foofu war nañ war nañ gis si ñoom defar war nañ yaakaar ci ñoom ab njub war nañ yaakaar si ñoom li nga xamante ne moom mooy sécurité waaye bu ñu demee ba école buy tëj ñu gis école boo xamante ne ñooñu ñoo ñiñ doon jàngal ñooy yàq kon dañ naan kon jàngalekat boobu échec na ci ci li nga xamante ne moom la doon def kon yar bi mu doon yar échec na ci xëy na jàngalekat yi ñu ngi jàngale naam waaye yar bi moo des te jàngale at yar ñoom ñoo war a ànd jàngale at yar ñoo war a ànd kon ñoom bu ñu loolu bu amee rek kon day wane ni jàngale bi xëy na am na waaye kon échec am na ci wàllu yar bi. yàlla yàlla amiin barakallah ok merci. Euh, comme ni ngeen ko gisee tey ñu ngi woon fii ci jullikaay bi euh, stade Léopold Sédar Senghor chaque année ñoom bu fekkente ni war nañoo julli dañuy julli fii euh, ñu am imam boo xam ne mooy imam Galadio Ka mu def fi xutba bu am solo tey xutba ci loo xamante ni bii moo jëm ci njàngum xale ak éducation bi wax tamit lu ëpp solo mooy lan ci wàllum géopolitique bi ndax gis nañu Sénégal fan yi jaxasoo na lool lool mu def ci ay waxtaan yi am solo yoo xamante ni bii amaloon nañ ko fi tey di leen sant di leen gërëm di leen wax ni di leen leen andi rahmatullahi wa barakaatu.